jamono yooyu taalif moom na nga xam ne booba jaam dëgg-dëgg am na bu fekkee soxna sa laata ñu ko koy may daa sartan daa sartante woon ak moom ne ko faaw kat danga may wutal ab jaam bu may liggéeyal su boobaa kon soxna sa mooy moom jaam ba dëgg-dëgg ndax dañ koo sartaale mu bokk ca alal yi sëy ja bu fekkee waxaale wuñ ko woon nag ca ba ñuy fas sëy ba nag gannaaw bi rek la góor gi indi ab jaam ci kër ga kon góor gi moom moom jaam ba su ko mayee soxna sa soxna sa door koo moom léegi lu toll nag moom jaam bu ñuy jënd di ko moom amatut kon léegi mbindaan moo des kon nu wax ne su fekkee ne soxna sa yelloo na ñu wutal ko mbindaan te borom këram mën na ko kon na ko ko wutal waaye nag da koy wutal mbindaan mu jigéen baa bu fekkee ne góor lay doon na nekk góor goo xam ne wóolu nañ ne lu yàgg-yàgg du mën a joteeg soxna sa dara dara lu aay baabul li ab bunt la fil bu yoox yi ci xeeti jaay yi wama ak la nga xam ne chaque la niroonte naag al bu yooxa xeeti jaay ya dafa bëgg wax nag ci mbirum jaay ak jënd ak lu xeetoog ñoom ñaar loolu nag foog fekk bunt bu yaatoo yaatu lay doon wa axal la dagandal na allahu yàlla albayxa jaay wa xaramate mu araamal ar riba riba sunu borom day daganal na jaay te teg ko ci yoon waaye araamal na lépp luy xeetu riba wax ne ne jaay boo ko sellalee bañ caa def dara lu aay dana bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg bokk ci xeeti pàgguteef yi ëpp tuyaaba na addis bu waxee ne afdalul kas bi bay on mabrurun wa amalul rajuli biyadihi ak bam ne ma akala ahadun taaman xattu xayran lahu min an yakula min amali yadihi kon bokk na ci li gën a bari tuyaaba te mën a maye ngërëmul yàlla lool fexe ba li ngay jëfandikoo nga di ko fàggu ci sa loxo te di ko fàggoo ci na mu gën a teeye waaye loolu nag day aajowoo jihaat ca bu baax a baax ni ki lépp loo xam ne rek aay na mbaa mën naa jur lu aay rek faaw da koy moytu ni ki bu dee jaay lépp loo xam ne kam koy jaay mën na caa defu mooy yàlla ni ki bu dee jaay day moytoo jaay yu fi xeesal yi day moytoo jaay mees ak leneen loo xam ne rek mën naa andi ak mooy yàlla bu dee kuy liggéey ni ki kuy ñaw tey moytoo ñaw benn yére bu gàtt boo xam ne ka koy sol te muy jigéen dana am lu feeñ ci yaramam lu ci war a feeñ moo tax daal bu bëggee ak liggéeyam sell ba nekk jihaad li ñu wax ne man talaba risqa xalaama yu sannu fa huwa fii jihaad ku sàkkoo wërsëg nañ ko yoonale yaa ngi nekk ci jihaad loolu balaa mën am daal kooko day farlu bu baax ànd ak tey ànd ak sagoom fexe rek ba lépp lu mu am amee ko ci na mu gën a teeye te it bëgg rek amin wu gaaw jëru ko ndax xamul ba xam li mu yàkkamtee am dana ko fekkeem déet ndax ndegam mu xamul ba kanam fu mu yem bu gaaw tuut lu bari dem bàyyi ko fi keneen jëriñoo ko it moom day gàddu bàkkaar ba ba noppi jëriñoowu ko kon nag képp kuy fàggu ci àdduna rek la muy fàggu na koy seetlu bu baax a baax fexe bay amee ci anam gu teey su boobaa lu mu ca def ci yoonu yàlla bu dee taalibe bi lu mu ca def ci yoonu sëriñ bi mu daal di nekk lu rëy rëy rëy lu ama am ngërëm wa axalla daganal na allahu yàlla albayan jaay wa xarama te mu araamal ar riba riba daa tàmbalee ci laaye ji suñ boroom waxe ne man day daganal naa leen jaay ak jëndante ndax seen njariñ la waaye nag damay araamal riba riba moom moytu leen ko wakaana nekkoon na ribal jaahiliyati riba yi way réer ña mooy la njëkk lislaam fi duyooni ca bor ya ndax imma an yaqdiyahu benn mu fay ko wa imma an yurbiya wala benn mu yokkal lëxoo ñeel ko fii ci moom nee na njëkkal islaam nag moom bokk na ci la daa indi riba lool lool buñ am lentee ci wàllu bor buñ àggee ci dale ba borom bor bi day wax tam lebalan ne ko danga may fay kat ndax tey nga ma war a fay su fekkee mënoo maa fay nag naa la toppalal dele bi da nga yokkal ma ci bor bi nangam ni ki téeméer la woon su fekkee mënoo maa fay tey nag naa la bàyyi ba ñu teg ci fukki fan ak juróom da nga defal ma ko téeméeri ñaar fukk suñ àggaatee ci dele booba mu defati noona topp ko mu yooyu ba day mujj rek mu amee loon ko benn téeméer mu soppiku ay junni junni mbaa lu yéeme yéeme ci bari lu mel noonu bokkoon na ci xeet riba yi siiwoon ci yooyu jamono wa min riba bokk na ci riba fii xayri nasiati ci dudul yeexe bay on fiddati jaay xaalis bil fiddati jëndi xaalis yadan biyadin mbir mu muy loxoog loxo waaye nag mutafadilan muy aji appante moo ko yàq wa kazalika naka noonu azzahabu jaay wurus bi zahabi jëndi wurus bu ñu nee jaay xaalis jëndi xaalis mooy rek wecc ko xaalis ci xaalis bu ñu nee jaay wurus jëndi wurus mooy rek wecc ko wurus ci wurus su fekkee ñoom tëgg yi koy xelli la nga xam ne xaalis ak xaalis la wurus ak wurus la te aajowoo mu yemoo képp doonte sax dañoo jàpp ne bee moo gën a piire waaye nag xaalis ak xaalis la moom daa war a yemoo képp ca lañ cay jokkalante te it muy loxo loxo fasaasa bu ëppantee ëppante ga nekk riba bu yeexe amee kee joxe te nga joxewul fasaasa ba tey mu nekk riba bu dee wecc ku ni itam ci xaalis bi ñuy jaayee ko jëndantee ci bitig yi bu dee jëmmi xaalis bi nga xam ne moom lañ jëflantee muy seefa ak moroom rek daa war a yem képp suñu laa yor ab jal ci weccet ku ñëw di wecc ko aw kayit am lu la ca bàyyee mooy nga wecc ko tam jox la nangam loolu day araam kenn du nangu ëpplante dara ci weccet wa ndax dërëm yi ñuy jëflante ci biti yi sax dëgg la du xaalis dëgg-dëgg waaye moo wecci xaalis dëgg-dëgg kayit yi itam kayit yi moo wecci xaalis dëgg-dëgg kon ba tey buñ koy wecc ko daa war a yem képp ndegam benn xaalis bi la waaye nag saa yoo xam ne xaalis yi wuute na ni ki bee dafa nekk CFA bee nekk beneen xaalis ni ki dollar wala rial wala beneen ëpplante ga daal nay dagan moo tax addis bi daa waxam ne fa isax talafatil ajnaasu fabiyon kayfa shi'tum ida kaana yadan bi yadin su xeet yi xasee wut rek na ngeen jaayantee nu mu leen neexe waaye na nekk nag loxoog loxo nga xam ne kon buñ dee wecc ku yaari xaalis yu bokkut ni ki xaalisu CFA ak xaalisu euro wala xaalisu dollar yeneen yépp rek mën nay ëppalante nañ ko bëggee nga xam ne kon mën ngaa def sa métier sax di wecc ku xaalis yooyu ndega moom xaalis yi bokkuñu rek ëppante ga du wàññi dara kon nag li muy bëgg a wax mooy takk-takk bi ndax moom day wax ak baamu ak baamuwaat rek wala ye joosu du dagan fiddatun jaay xaalis maanaam wecc ko xaalis bi fiddatin ci xaalis wala dahabun du jaageen wurus bi dahabin ci wurus illa mislan bi mislin ndare ci kem ci am kem yadan bi yadin loxo ak loxo kon daal bu ñuy jëflante ci weccee xaalis ak xaalis ak wurus ak wurus daa war a yemoo képp te itam nekk loxo ak loxo bu ëppantee ëppante ga nekk riba bu yeexe amee kee joxe te kee joxewul fasaasa mu daal di nekk riba hadis ba daa waxam ne laa tabiyon aldahaba bildahabi illa mislan bi mislin wala tushifoo baadahu xala baad wala tabiyon الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيه منها غائبا بناجس لما في التأخير من ربا النساء kon yeexe du am ci jokkalante xaalis ak xaalis mbaa wurus ak wurus ëppante itam du ci am lu mu néew néew wal fiddatu jaay xaalis maanaam wecciku xaalis bi dahabi ci wurus riban riba la illaa yadan bi yadin ndare muy ci loxoog loxo maanaam bu fekkee da nga koy jox xaalis mu lay jox wurus moom dana nangu ëppante ndax xam nañ ne wurus moo gën a foor bu baax a baax kon jokkalante xaalis ak wurus moom du bañ mukk ëppalante waaye yeexe ga rek moo cay aay maanaam ñàkk kaa jokkalante fa saasay saasa mooy nekk riba ga lépp li na nag riba la aay na mat naa moytu bu baax a baax ndax yonante bi daa waxam ne sunu borom day rëbb na ka nga xam ne mooy lekk riba ak ka nga xam ne moo koy joxe ñu koy lekk ak ka koy bind ak ka koy seere nga xam ne sax dem naa dem ba ku jàpp ne riba ayut dafa dagan te yàlla araamal ku wér a wér ñëw ñu koy jàng ci yaxu alquran day jàpp ne kooku daa génn ci lislaam daa murtat su fekkee da ngaa jëflante woon ak kenn ci riba nag am loo jël ci yëfam kon boo ko xamee da nga ko koy delloo su fekkee xamoo ko nag nga saraxe ko bu fekkee moom daa nekk ni yëfar mu tuub nag fekk mu yoroon alal riba nag ndegam tuub na rek dara nekku ca na fexe rek ba mu tuubee jëm ca kanam bañ koo defati mukk mukk waaye nag nga seetlu ne moom moom mu tuub te fekkan mu jëflante ci riba lam ci jot jëflante ba téye ko ci loxoom loolaay dagan waaye lam jëflante te fayaguñ ko ko ci xeetu riba yi moom du ko sañ a jël da koy bàyyee kooko te bañ koo jël wattaxaamu xeetu ñam minal xuboo bi ci xeeti pepp yi wal xitniyati ak jiirisa bi wa shibha ak yu nuroog ñoom mim maa ci lépp loo xam ne yu daxaru def na ko denc min xóotin mu di ab dund aw idaamin wala randaay randaay mooy lu ñuy safale cin mel ne diwug ñor wala leneen lu ñuy neexale ni ki lem wala lu mel ne xorom yu yëpp bokk na ci la ñuy safale cin laaye joosulu dagan al jin su jaay aw xeet min hu ci moom bi jin si yi jënde aw xeetam illa mislan bi mislin ndare muy ci kem ci am kem yadan bi yadin loxo ak loxo wala ya joosu te du dagan fii ci moom te axirun ak yeexe takk-takk bii bu mata jàpp la daa wax ne xeeti ñam bu fekkee luñ mën a denc di ko dunde la moo xam day jëmmi ñam wa moo xam dañ koy defare togg ga rek duñ nangu ngeen di ko weccee ba noppi kenn ka jox moroom ma lu ëpp la ko moroom may jox te itam di loxoog loxo boole ci ndax foo ko fekk moom jaay ñam jënd ñam du nangu mukk ak yeexe faaw joxante fi saasa jokkalante fi saasa lay nangu ëppante gi sax moom mën naa am ci bu fekkee ne loola mënis koo denc di ko dunde di xeeti furu yi ak xeet lu yum yooyu dana ko leeral ba tey itam bu dee yaari xeet yu bokkut dana nangu ëppante waaye na bu ni ki léegi bu fekkee yore nga ceeb boo xam ne daa yemaay ci yow nga bëgg borom bitig bi jaay wecc la ko itam day aajoo rek bu ko nangoo lam lay jox ak la nga koy jox yem képp waaye duñu nangu mu jox la lu yées la nga koy jox duñu nangu itam nga teg ko xaalis mbaa dara kon jigéen ñi nga xam ne ñooy jëlee ceeb ci seen kër dem di ko wecc ko ci ci dëkk ba nañu xam loolu faaw rek duñ sañ a jox kay jaay ceeb bu yemaay bañ yor mu leen di jox lu yées loola duñ ko mën a dool itam xaalis mbaa leneen su mënta ñàkk say boo ñu jaay ceeb bu yamaay bañ yor dem jënd nag bu piire ba ñu bëgg loolu na damaa wax ceeb rek ndax loolu mooy ceeb waaye mboolem xeeti ñam yépp yépp yépp noonu lay mel saa yoo xam ne rek yaar daje na ca mooy yaari ñam ya nga xam ne moom la ñuy jokkalante wenn xeet la boole ca mënees na koo denc di ko dundee moo xam jëmmi la ñuy togg moo xam jëmmi la ñu koy neexale muy lañ koy safale di ko neexale togg ga daa war a yemoo képp-képp di loxoog loxo donte sax benn ba dañ koo seeral lool lool benn bañ yobbal ko lool lool itam ba tey rek àtte bii moom benn la faw rek bu ñu koy jaayante saye bone bu ñu koy weccante daa war a yemoo képp képp nekk loxo ak loxo bu ca genn ëppante amee muy riba bu ca genn yeexe amee kee joxe te nga joxewul fa saasa muy riba loxo loxo moom faw jaay ñam jënd ñam moom lay doon ëppalante ga nag moom bu fekkee ne yaari xeet ya bokkuñu daañu nangu ñu ëppante nekk bi ne kee day joxe ceeb kee day joxe mboq mbaa kee day joxe ceeb kee day joxe suuna mbaa saaño mën na ëppante ndax yaari xeet ya bokkuñu li nga jàngal léegi ne fa iza xtalafatil ajnaasu fa biyaxoo kay fa shiitum iza kaana yadan bi yadin loola rek mooy takk-takk ba da koy baamu baamuwaat rek wala yajuusu du dagan taxaamun jaay aw ñam bi taxaamin jëndi aw ñam ila ajal jëm ci àpp kaana moo xam nekk na min jinsihi bokk ci xeetam aw min xilaafihi wala bokk ci wuuteem kaana moo xam nekk na mimmaa di bokk ci la nga xam ne yut daxaru def na ko denc aw laa yut daxaru wala defu ko denc jàppal daal ne moom bindee joxlante ñam ak ñam ci wàllu jaayante lu yàgg-yàgg daa war a nekk loxo loxo yeexe du ci am mukk mukk ba ci yeexe amee rek mooy ribaa ëppalante ga nag moom mën naa am ndegam day yaari xeet yu bokkut ba tey ëppalante ga mën naa am ci léew yu bëgg a wax bu dee loo xam ne mënees koo denc di ko dunde iki xeeti furu yi wala xeeti lujum yi yooyu moom nangu na ak ëppalante waaye lépp rek faaw na nekk loxo ak loxo mooy nga jox ko mu jox la fi saasay saasa ma tax mu naa wala ba asa ayut bil fawaaki si ca furu yi furu yi dañ ko wax payteef ci wolof payteef furu wi nag tubaab yi ñoo koy wax te ñu mene ko ko léegi lool wala boqwali ak lujum ya wamaag la nga xam ne laa yut daxaru def ko denc mu tafaadilan mi aji appante wa inkaan ak doonte nekkoon na min jin sin di bokk ci xeet waaye it bu di wenn waaye nag yeddan bi yedin mbir muy loxo loxo xeeti furu yi ak xeeti lujum yi nga xam ne mënees koo denc di ko dunde ak lépp lu mel noonu rek dana nangu ngeen joxlante ko ci wàllu njaay muy wenn xeet wa te du tee mu ëppante ni ki kee joxe biñ waar kee joxe ñaar biñ waar wala kee joxe pot kee joxe ñaari pot wala kee joxe nangami kilo kee joxe lu ko ëpp ci kilo dara nekku ca waaye nag na nekk loxo loxo jaay ñam jënd ñam moom du nangu mukk yeexe joxlante fa saasay saas rek lay nangu day baamoo ko baamuwaat rek nag wala yajuusu du dagan at tafaadul ëppalante fil jinsi ci xeet wa alwaahid wa di wenn fii maa ci la nga xam ne yib daxaru def na ko denc nal fawaakih ci xeeti furwu yi al yaabisat yari aji wow wa saairil idaami ak mboolem randaay wa taxaami ak ñam wa sharaabi ak naan moom daal nee na xeeti ñam yi moom bu dee wenn xeet moo xam jëmmi ñam waa moo xam jëmmi lañuy neexale togg ga la ne manees na koo denc di ko dunde rek du nangu ëppalante mukk mukk bu ëppalante rek ëppalante ga nekk riba léew mu ca boole nag ne xeeti fruit yi wow yi xeeti fruit yi wow yi moo li mel ne reseñ reseñ da am na reseñ boo xam ne ñu koy wowal ñu koy wax reseñ sec reseñ sec boobu moom da ko boole ci nga xam nanguwul ëppalante waaye wax ji gën a wóor mooy xeeti fruit yi moom buñ ko wowalee ba mën koo denc itam du tee mënees na caa ëppalante léemu ca teg ne illal maa ndare ndox mu ñuul wax dafa moom rek ndox mu ñuul moom bokkul ci xeetu ñam nga xam ne yaari ndox ya bu fekkee yépp lañ mën a naan ak lu ñu dàqante dàqante mën ngeen koo weccente te bu ëppante mel ni nga jox ko benn biñuwaar ci ndoxum taw moom mu jox la ñaari biñuwaar ci ndoxum teen bi lu mel noonu ayut waaye dëggal rek ñu takkal la mbirum ndox nga jàpp ko benn yoon bañ koo bàyyeeti waalam àndal maa ala qismayni ahaduhuma alhadbu wa huwa ma yumkinu shurbuhu walaw xinda darurati wa hadha jinsun waxid wa tanihima al ujaaju wa huwa ma la yushrabu li mararatihi kalbahri almaalix wa huwa jinsun axar فيجوز بيع أحد الجنسين بالآخر ولو متفاضلا إلى أجل وأما بيع الماء بماء من جنسه فإن كانا متساويين جاز ولو إلى أجل وأما عند اختلافهما بالقلة والكثرة فلا يجوز إلا يدا بيد ويمتنه إلى أجل day takk ne ndox dañ koy jàppe ñaari xaaj ndox mu neex ak ndox mu naqari buñ ne ndox mu neex moom mooy moo xam ne rek mënees na koo naan doonte sax neexut waaye boo demee ba loru naan ko it teewul rek ndox mu neex lañ koy jàppee bi ne ndox mu naqari nag mooy moo xam ne daa wex wex ba nga xam ne kenn du ko naan mukk mukk mukk mel ni ndoxum géej mu weex moomee bu fekkee ne nag da ngeen di joxalante yaari xeet yu bokkut kay joxe mu neex kay joxe mu naqari kon moom ni ngeen ko jëflante rek baax na mën naa appante mën naa bañ a teew itam bu fekkee yaari ndox yee ñooyam nag dañoo bokk neex mais mu neex la mais mu neex la wala mais mu naqari la mais mu naqari la te bul fàtte ne biñ nee mu neex rek mooy moo xam ne mënees na koo naan doon ci sax bala nga koo naan dangaa dem bu mënta ñàkk waaye daal des na ko mën a naan moom biñ nee mu naqari mooy moo xam ne kenn mënu koo naan mukk mukk ndax moom weexaay ba ndegam noonu la demee nag su ngeen dee jokkalante yaari ndox yoo xam ne ñoo bokk aw xeet bokk neex mbaa ñu bokk naqari bu fekkee lu ngeen cee jokkalante daa yemoo képp kon lu ngeen cee jëflantee rek mu baax mën naa teew mën naa bañ a teew waaye nag bu fekkee lu ngeen cee jokkalante yemoowut kon faaw daa war a teew rek moo koy tax a baax waaye ñàkk gaa teew moom deesu ko nangu maanaam bu ci amee lu jëm dele rek deesu ko nangu وهكذا يقال في كل ما اتحد جنسه وهو غير ربوي وما لو خمني اختلفت ووتنا اجناسه خيتم من ذلك تي لولé ومن سائر الحبوب اك تي مبولم خيت بيبي واستماع اك منيتي وطعام اك نيام فلا باس ايت بالتفاضل تي ابلانتي في تي موم يدن بيدن mbir mu muy loxo loxo xeetu pep bam koy jox ak wam lay jox du benn wala xeetu meññet wam koy jox ak wam lay jox du wenn wa wala xeetu ñam wam koy jox ak xeetu ñam wam lay jox du wenn wa su boobaa moom dana nangu appante bu wér a wér lu mu leen neexe rek waaye nag lu mu ci mën doon na nekk loxoog loxo ndax jaay ñam jënd ñam moom yeexe ga du ca dagan benn yoon mu dellu baamooti wala ya joo suur dagan ab tafaadul ëppalante fil jins ca xeet wa alwaahid wa di wenn min hu ci moom illa fil xudari dare ca lujum ya wal fawaaki ak furwiya day baamoo ko baamuwaat rek waaye lii nag mooy waxam bi mujj wax ci lu mel noonu mooy rek wane ne lépp luñ mën a denc di ko duni daal moom ci xeeti ñam yi bu ngeen koy jokkalante te muy wenn xeet wa du nangu ëppante daa war a yemoo kepp-kepp su dee nag loo xam ne kenn mënu koo denc di ko dunde ni ki xeeti payteef yi ñu koy wax fruit yi ki pom ak orange ak mandarine ak yi demee noonu wala xeet lujum yi moom doonte wenn xeet wala itam rek moom mënees na caa ëppalante bu baax a baax waaye bul fàtte ne jaay ñam jënd ñam moom loxoog loxo rek lay doon waaye yeexe mënu caa am benn benn yoon defe naa ne baam nañ ko yoon yu baree baree baree bari xëy na ci jàng dana ko war a takk bu baax a baax wal xam ko bele wa shahiru ak lor wa sult ak sult ka jël si ni mi ngi mel ne xeet waaxit wu di wenn fii maa ci la nga xam ne yaxilu dana dagan min hu ci moom wa yaxrum ak lay araam yett yi moom dañoo jege ba bu dee ci wàllu njaay dañ koy jàpp wenn xeet maanaam li ñuy wax bele ak lors ak sultu dañ koy jàpp wenn xeet nga xam ne tey boo ko doon jaay maanaam bu ngeen doon weccee nga di ko jox bele mu ne jox lors mbaa sultu itam day yem képp waaye du mën appante waaw day aajo mi loxoog loxo rek te bañ a appante wa zabibu reseñ kulluhoo léppam silfun wenn xeet la reseñ bu baree ay wirgo itam du teer dañ koy jàpp wenn xeet nga xam ne reseñ boo ko mën di jox ak bu mu la mën di jox yi daa war a yem képp rek moom waaye du nangu appante wa tamru tàndarma kulluhoo léppam sinfun wenn xeet la tàndarma boo nee fañ koy bayee day baree xeet lool ay façon am na ci bu seer lool lool waaye fi toll nii moom bu dee ci yoon boo ko doon jox tàndarma mu lay jox tàndarma daa war a yem képp rek moom di nangu mu ëppante ndax wenn xeet lañ ko jàppee wan xëcc niyetu gii di sëb yi asnaafun ay xeet lañu fil bu yooxi ci jaay waxta dafa wóote na fii xaa ci ñoom xawlu malik ni waxi malik maanaam dafa wax ne gii di sëb yi moom bu dee ci wàllu jaay dañ koy jàppe ay xeet nga xam ne boo koy jox sëb ñee mu lay jox sëb ñee mën nañu ëppante ndax jàppe wuñ ko wenn xeet mu ne nag bu dee ci wàllu njaay moom dañ cey nettali Malik yaari wax yu bokkut fee mu ne wenn xeet lañ fee mu ne duñ wenn xeet waaye li wax ji gën a wër mooy ay xeet lañu boo koy jox sam ñe mu lay jox sam ñe moom dana nangu appante walam yaxtalif wuutewut nag xawluhoo waxam fi zakaati ci asaka ne annaha naka ñoom jiiri sëb yi sinfun aw xeet lañu waaxidu wu di wenn teew nag moom bu ne ci wàllu asaka moom maal day wane ne mboolem jiiri sëb yi wenn xeet lañu nga xam ne boo bayee sëb ñe bay sëb ñe bay sëb ñe dañuy compter la nga am ci xeet wee ak la nga am ci xeet wee su matee juróom-benn bëri bu asaka war la xam ne kon dañ leen di boole bu dee foofu ca asaka ñi wenn xeet bu dee fii ay xeet lañuy bokkut wallu xawmu zawaatil arbaxi yàppi waroom ñeenti tànk yi minal anxaami curi kër yi wal wax si ak njaay àll yi sin fun wenn xeet la jàppal ne mboolem boroom ñeenti tànk yi niki gëléem ak nag ak gàtt ak sax bu dee njaay àll niki kéwél ak naga njaay àll yi ñooye moom dañ ko jàpp wenn xeet nga xam ne su ko dee weccee day aajoo mu yem képp waaye day araam mu ëppante te toll ni boo ko doon jox yàpp nag mu lay jox yàpp kéwél ak ni yàpp kéwél jëfee ñu tax mu ëppante daa war a yem rek walu xaw mu tayri yàpp njanaaw yi kull yi léppam silfun wenn xeet la maanaam mboolem yi naaw moo xam yi mbir nit ñi dëkk ak ñoom la wala njaal yi nga rëbb ci àll ba ñoo ci yemoom lu ci mën doon rek dañ ko jàpp wenn xeet nga xam ne yàpp woo ko ci mën di jox awul ak wumul ci mën di jox dafa war a yemoo rek moom walu xaw mu dawaa bilmaa yi yàppi daa bay ndox kulliha boole seen silfun wenn xeet la mboolem yi ngay nappee ci ndox muy jën muy leneen dañ koy jàpp wenn xeet nga xam loo ko ca mën di jox ak wum la ca mën di jox rek daa war a yemoo képp wamaa loo xam ne tawalla da juddoona min loxoobil jinsi ci yàpp xeet wa alwaahid wa di wenn min cheikh min ci garees fa huwa moom kalaxam yi mi ngi mel ne aw yàppam bu la nee nangam wenn xeet la lay bàyyi ko ci yàpp wa ci garees ak lu koy nuru wenn xeet lañ koy jàppe niki bu la nee borom ñeent tànk yi wenn xeet lañ lu mel ne gerees ga gereesu gëleem fi toll yi muy jafe-jafe moo gereesu xarak bay ñoo yemoo dong daa war a yem rek wa albaanu daalika sin fi soowi wowale xeet wa jubluhu ak liranam liranam mooy formation wa samnuhu ak diwu ñorom lépp sin fun wenn xeet la bu leneen nangam wenn xeet la xamal ne soow maag meew maag formation baag diwu ñor gaag yépp rek ak bër ba benn xeet lañ koy jàppe léegi bu la nee borom ñeen tànk yépp kat wenn xeet lañu xamal ne kon boo ko doon jox sowum gëléem mu lay jox sowum nag it daa war a yem rek boo ko doon jox jiwu ñor gu bàyyi ko ci gëléem mu lay jox jiwu ñor gu bàyyi ko ci xar mbaa bay daa war a yemoo rek bu dee fromage ba noonu lépp rek noonu la wa man yib taaxa ku jënd taxaaman aw ñam falaayo joosul dagan bay xuufoo ak jaayaatam qabla an yastaw fiyahu njëkk mu di ko ngëb itaakaana dem nekk na shiraahu jëndam nga daalika loolee xàllaa wës nin ci kaw peese aw kay li wala nat aw xadat ni wala lim nee na bu fekkee da ngaa jënd aw ñam nit nga jaar ci bitig bi nga ñëw rek jënd fa fukki kiloy ceeb ba fukki kiloy mboq ba fukki kiloy suuna bala nga koo mën a jaay da ngaa dem ba jël ko ba noppi waaye doo mën a ñëw fi rek ne ma jaar naa fee ci bitig ba kat jënd naa fa fukki kiloy ceeb naa la ko jaayaat déedéet bala nga koo mën a jaayaat faaw rek nga jot ci ba noppi ndegam dañ ko war a peese jox la ba ñu war koo natt jox la ba ñu war ko wàññi ni ki ba doon ay nen nga jaar ci bitig ba rek jënd fu fukki nen waaye joxagu la ko wàññeeku wàññeekoo jox la ko déedéet doo ko mën a jaayaat faaw da ngay xaaru jot ci bi xilaafil jusaa fi ci wuteekub jal ab jal dañ cee jublu loo xam ne kenn peese wu ko kenn natt ko kenn wàññiwu ko su fekkee da ngaa romb rek ci bitig ba ñu jal am pepp moo xam ne kenn peese wu ko kenn natt ko ngaa waxaale ba jubóore ñu jaay la ko noonu kon mën ngaa jekki-jekki jaayat ma ko may itam te fekk sax jëlagoo ko kon ab jal moom mooy loo xam ne kenn peesewu ko kenn natug kenn wañu ko mën nga koo jënd ci aw ñam te jotagoo ca daal di koy jaayaat du añu dara wa kasaalika naka noone kullu taxaamin yépp ñam aw idaamin wala randaay aw sharaabin wala naan nee na lépp luy xeetu lekk mbaa lu ñuy safale ak lekk mbaa xeet naan ni ki lem li xel jotagoo ci rek léegi maanaam boo ko jëndee fee te jotagoo ci rek duy nangu nga jaayaat ko fi saasa faaw nga xaar ba jot ca illal ma andara ndox mu ñuul wax dafa moom rek ndox mu ñuul moom du aw ñam moom daañu nangu nga jënd ko jotugoo ci wëlbati ku jaayaat ko mel ni nga romb kii root ci barigo bi rek nga ne ko jaay ma barigo ndox bi daal di koy fay jotugoo ci sax daal ñëw jaayaat ma ko loolu mën naa nekk wama loo xam ne yëkkoon dana nekk minal adduyati di bokk ci xeeti saafara yi wa zaraari yi ak jiw ya allati ya nga xam ne laa yox tasur deful nal min haa ci ñoom zaytun diw falaay duxlu du dugg zalika loolee fii maa ci la nga xam ne yaxrumu dana araam min bay si taxaami ci jaay aw ñam xabla xabdihi ci njëkk nga moom nga aw it tafaadli wala ëppalante fil jins ca xeet wa alwaahid wa di wenn min hu ci moom nee na loo xam ne dañ koy garaboo rek mbaa aw jiw la woo xam ne deesu ko segal ci génn diw mene bu fekkee ne xaal noonu la mel jiwu xaal mene ne jiwu xaal mel ne deesu ko nal di ci génn diw yu mel ne yooyu moom boolewuñ ko ci xeetu ñam yi nga xam ne dañuy wax naa faaw boo ko jëndee bala nga ko yaay da nga caa jot mbaa dañuy bañ ko ci appalante lu mel noonu mënees na ci appalante ni ki xeet lu ñuy garaboo rek moom mbaa xeet ay jiw yu ñu jite amul jiw guñ cee sagale kooku moom mën ngeen ko jaayante mu ëppante ni nga jox ko ca ab pot mu jox la ñaari pot baa nga jox ko kilo mu jox la ñaari kilo ba tey nangu nangu